السلام عليكم ورحمة الله بكين يقول أن يجي للزيار أن بالحق أن برمي سبحانه وتعالى مبالا جيجا حديث تيب دفع عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا حديث بن يمكو سعيد بن المسيب mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne li dox suñu digganteeg naafiq yi mooy di teewe waxtu julli gee ak julli suba naar waxtu yooyu ñoom mënuñu koo teewee kon lii ràññee naafiq ak kurul naafiq naafiq foo ko fekk moom waxtu fajar du ko jug waxtu géey du ko julli ca mbooloo ku dul jol koo xamante ni du amul ngànt bu koy tee julli fajar ci mbooloo du ko def géey du ko julli du ko julli sax ba di ko julli ca waxtoom sax ba di julli ca mbooloo kooku ci naafiq yi la bokk yonent bi wax loolu sallallahu alayhi wa ndax waxtu yooyu dafay diis ci ñoom lool loolu ci màndargaam yi la bokk wala bu demee ba dem ci jàkka ja rek yëgal ni am na lu xew loo xam ne soxla na ak visibilité loolu jikko jikkoy naafiq la koo xam ne du fréquenté jàkka saaye bu demee ba yëg ni am na lu xew ca jàkka loo xam ne moom war naa feeñ rek mu daal di dem joox burux lu daal di toog buñ ko xoolee seen ko ràññee ko ca mbir ma loolu naafiq la fekk jàkka ji miinu ko miinul jàkka ji jàkka ji miinu ko bokkul ci li koy wettili koo sax kooku jikkoy naafiq la yal nañ ci yàlla musal loolu moo tan xadis boobu wafaqana allah biyak ala taatihi bi ridah wa yassara lana bi أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته